Um, yéen waa tund kajoor bu ne kajoor nag Thiès la tàmbalee maanaam limite de la région de Kajoor ma nga yem ci Limaxa tey jii nag ñu ngi fii ci Pekes Pekes quartier bi na xam ni bi naan pey tey jii ñu dajaloo fi ànd ak kan l'initiateur de Mbakol développement ñu naan ko le directeur Basirou Diop Bonilé fas yéene sargal kan góor Gora góor Gora Thiam nekk grand communicateur ci Pekes dëkk Sugeer kon tey buñ koy préparer le 2 war koo sargal tey jii moo tax ñu agsi fii tey war a interroger ñi nga xam ne tey muy pël di naar di olof di joola toute ethnie confondue fii ci Dënga Maam ci Pekes di nga maam ñu war leen a laaj nan leen gisee bis bu ñuy préparer le deux kenn ngi niit ñu naan ko Malick Malick di rakkam ñu bokk dëkk bokk ca seen askan kon malik ma laaj bis bi di le deux ñu war a sargal Gora Thiam noo ko gisee bisimilah Malick. waaw mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziare bu baax di wax onsi billahi mina bis bi nag dafa alaa daw me ndax li tax mu alaa daw me mooy kin koy defal di bàyyi góora dëkk sugeer ki koy defal nag ay maamam yàgg na noo defal maami bàyyi góora lii mu ko defal tey di Basiri jóob di Bonalee tey ñu dajaloo fii ci pey ci kër ma Samba Aram Diop ci kër maamam cilmaxa di kër baayam tey ñu dajale fi askan yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Kajoor mate ko sëkk xam li nu doon te doo leen gis ci lenn loo xam ni lu doyo di la mbaa lu léem loo xam ni da leen ci dégg wu ni waroon waroon ko woon a def tey nag ñoo ngi ci fii ci pey bis bi nag ñoo ngi ciy woo bokki Kajoor yëpp ndax Baye góora képp koo xam ni fii nga dëkk ci Kajoor Baye Gora am nante na yow jàmm fu mu fekkee lu ñaaw tamit dina fexe ba dox ko ba mu rafet fu mu fekkee ñaar ñoo xamantewul dina fexe ba xamle xamale leen ban xamale seenu bokk yi leen bokk kon bu Basiiru Jóob jugee di satub la joor ay maamam defoon sunuy maam faralaam bi damel teeñ tey jii mu ñëw di sargal góor a caam loolu wàcc na ñu ci woo askan wi wépp nag rawatina nag sugeer gi nga xam ni fa la bàyyi góor a dëkk bàyyi foo kenn di ko jiital ci bopp bi boroom dëkk ba di may sa Sàll ak ay rakkam ak ay doomam ak njabootam yépp askanu ngéwal tamit nag bàyyiwunu kenn ñoo ngi ciy woo ñëpp bis bii nga xam ni Bassirou jóom moo koy amal fii ci Pekes ci pey le 2 di ko amal bàyyi góor Gora Thiam muy sargal ñoo ngi ciy woo mbokki jullit yépp bàyyiwunu kenn muy góor muy jigéen muy mag bàyyiwun ci kenn tey jii nag ñii fi dajaloo tey ñëw tee li nga xam ni mooy aaday cosaan aadaak cosaan fii ci kajoor lépp looy def te boole woo leen ci dina des ñu mate ko sëkk nag kon dinaa bàyyi sama mag mu gën a doxal ñu gën a xam kan may mooy bay Baye Gora ak lan lan koy sargal bi fii ci bis bi nga xam ne ñoo ngi koy defal fii ci Pekes le 2 Basirou Diop di ko defal ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di xam bég bég bu baax a baax askanu Baye Gora tamit ñëpp a bég ñëpp a kontaan wasalaam. nen dinaa leen xamal ni Basirou Bonilé l'ensemble des communicateurs du COER surtout fii ci pekees ak toutes les griots ak toute personne confondue ah fas na defar nag comme ni mu def Mbakol développement bu Cilmaxa bu Kuul bu Pekes bu Mérina bu Touba bu Ñaaxeen ak bi nga xam ne da nga maam ma nga ca Daaru Musi nee na nag loolu laa fas yéene defal les communicateurs ak géwél yi nga xam ne ñu ngi fii nekk ci askanu ñeeñoo ci Pekes kon nag ah si bala ma jàll ma jox ki nga xam ne moo boot lawbe yi fii ah ma ko laaj bis bi nag nan nga ko gisee soxna Khady Niang. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen baal ak di leen baal ak di wax ni góor a moom bu ngeen nu ci laajee rek dañ ciy sawar ndax góor a moom ci kanamam loon juddoo ba toll nii xamuñu ci moom lu dul baax bëgg ñépp nag ñëpp bëgg ko fekkewul dara lu ñaaw nag wax dëgg yàlla dañuy wax rek yàlla tax baax am ak ñëpp jàmm kon Basiru Jóob sëtu maa Sàmba Aram Jóob bi di sëtu Lat Joor bu ñëwee ci ëttu maamam bi ñu woonu fi pour ñuy laaj ci góor ay témoignage dañ ko koy wax ndax Basiru Jóob it ko baax la def na nag li ko war ndax sëtu Lat Joor laa ak sëtu maa Sàmba Aram Jóob doy na lépp moom nag moo jóg rek boole noonu nag bëgg noo suqali rek nag nuy kontaan ci moom di ko ñaanal yal na eggalee sagoom di wax nag góor a kuy géwél rek ak lawbe yeeg naar yeeg joolaay ñëpp dañoo kontaan ku ne da ngaa bàyyi sab liggéey ñëw ndax góor a di ñaan bis bi yàlla na seddu guyu nag wasalaam. ah tubaab nag dañuy la physionomie d'une personne ne détermine pas l'être humain ñu ni qu'est-ce qui détermine l'individu ñu ni c'est l'expérience parce que c'est l'expérience qui fait la différence par rapport à l'autrui Bassirou Diop nag genre boobu la ah li ma gën a neex ci moom nag arme forum mooy la patience parce que la patience est l'arme la plus redoutable pour atteindre toute cible dans la vie. ci li muy dox depuis dix ans mi ngi dox ci biir Kajoor lan la ciy dox dix ans yoo xam ne ci politique de développement lay dox kon nag tey jii ma jox euh, mari ji ñoo xam ne ci biir Pekes ah am na gis-gis ci bis bi mari bisimilah. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp nekk ci turam ci santam. nuyu ñëpp ba ku ci ne ci turam ak ak santam waaw buñ ma laajee tey ci affaire góora dinaa ci sawar a wax ndax man joolaa la dëkk Pekes sama yaay ñëw fi depuis 68 ak léegi daanaka ci dëkk bi laa dëkk xam naa fi lu bare góora caam sama yaay fi dëkkoon ak papaam bu yàgg dëkk feek papaam ñu deflante lu baax lu xew sugeer mu jóge pekkes dem ba sugeer yàlla dogal ñu làqu nañu ñun ñoo fi des loolu suñu waajur doon doon doxal ñu continuer di ko doxal góor a caam xamaluma ko leen lu dul lu baax bu amee lu mu xewle sugeer dañuy déplacer pekkes dem ba sugeer xami jabaram xam xami doomam xam xami jarbaatam xam ñëpp kon góor caam lu baax rek lañ ko xamal ñu ko leneen lu dul lu baax di dox ci ñi ñi lu baax di wax ci ñi ñi lu baax di jubale ñi ñi bu gisee ñaar ñoo xam ni dangoo nañu mu jubale leen di wax ci ñoom lu baax kon nag góora lu baax rek lañu mën a wax ci moom macha allah jërë ngeen jëf. askanu pël yi askanu tukulóor yi kon nag aji tukulóor lépp benn la kon Basirou xamal ni. l'ensemble de la famille Gora Danga Maam ñu ngi. fas yéene préparé bis bi kon aji bisimilah. waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp ku fi ñi fi teew di kontaan ci bés bi nag ndax <clears throat> ki ñu fi dajale tey maa ngi koy sant di ko gërëm sama càmmiñ la sama xarit la sama xaritu mag la woon sama mag bi laa la muy Bas Diop Bonilé maa ngi koy sant di ko gërëm di ko nuyu di ko ziar di di nuyu sama càmmiñ Gora Gora Thiam bu bu ngeen waxee ci Gora Thiam dama ciy sawar ndax Gora Thiam sama càmmiñ la sama xarit la <clears throat> bésam bi ñi ngi ñaan yàlla yàlla ko yàlla yàlla na ci yàlla def jàmm yàlla réussiral ñu ñu ñu ñu ñu kii ko ci jàmm lawbe ngi fi tukulóor a fi joolaa ngi fi olof a ngi fi ñëpp pour bés bi réussir rek ñi ngi ñaan yàlla daal yàlla nañu yàlla jàppale ba ñu ñëw ci bés bi ci jàmm yéen ñëpp ngeen kontaan Bass Diop bañ lee kontaan ñi ki ñuy sargal kontaan wasalaam. mi nga xam ne moo fi représenté olof yi. maaleykum ñu naa ñëpp seen ak seen sant man la aw jéey ñëpp nag xamee ma ci aw aw Diop laa tudd mais ñëpp aw jéey lañ ma xamee kon bisu baay góor bi buñ ma ci woowee damay ñëw. amoon naa nag beneen yitte bi ma waroon doxi Tiwaawan maanaam bàyyi góor dafa baax am ak nit ñi jàmm am ak xale yi jàmm am ak ñëpp jàmm bëgg ma nag trop. kon bisim bii il faut ma taxaw si représenté ci olof yi naar am na olof am na joolaa am na tukróor am na mais bàyyi góor moom bisam bi moom dañ ciy taxaw moom man ku ma woo ci bàyyi dama ciy sawar dama koy romb nag mu bëgg ma loolo nag faale ma yëg ma mais bu doon beneen nit la faale ma man du ma ñëw mais nag bàyyi góor moom fu mu woote ñun dañuy ñëw incha allah. di chef religieux ici à Pekes monsieur Arona ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal yëpp tawfiq ak taysir salaam ak naja man benn facette rek laa ci duggee góor man dama ko xam te xam naa ne jokkatu mbokk la te am na lu yàlla wax ci jokk mbok te ñu bari ñu ngi yàqu lu fekk mbokk mooy te góor a moom def naan day gudd fan day baax eh, li ci ñëpp wax rek mooy dëgg parce que yàlla def ne man may raxmaan bind naa mbokk def ko sama turandoo ku ko jokk ma jokk ko daggab yàqu nga àdduna ak àllaaxira yal nañu yàlla musal jokk góor a nag jokkatu mbokk xaritu ñëpp la soo gisee ñu dem bañ koy sargal du xëy ñu rek làmbaatu waaye xam lu baaxam ak di def lu baax ak di dox lu baax man di wax dëgg yàlla yàlla boole nañu tabaaraka macha allah sama gàmm la fu ñu tasee da ngay yaakaar nit ak moroomam la loolu daal laa ci duggee daal moom daal wax dëgg yàlla jullit la te jokk ko du mbokk la te ñun personne ñun ñun ñun chef religieux yi dañoo ñemewul koy dog mbokk moom nag yàlla da koo def ci askan boo xam ne bi mënoon na def lu ne waaye nag moom alhamdulilahi rabbil alamin fu mu fekkee ñaar ñu xéewaloo dana fexe-fexe ba mu rafet lu rafet lu ñaaw mu rafetal ko te ku woote mu ñëw boo demee ci kër kër diine yépp foo ñëw da ngay yaakaar ne góor foofu la bokk kon yàlla na ko yàlla sàmm aar ko defal ko tawfiq ak taysir yàlla may ñu fekkee le deux defal ñu jàmm ak salaam mënuma pare nag te santuma Bachirou Diop Bonilé mi nga xam ne wax dëgg yàlla lii yëpp mooma moom nee na dara eh, soxaluma lu muy ñaar sama kër yaay ak sama kër pap muy Cëlmax ak Pekes te yemu fi rek moom développement la dund moom lay kii ñu bëri ñu ngi koy jéem a xalab di ko kërti kërti nii di wax di n'importe quoi waaye moom développement la woote moom lay def depuis dix ans wala plus mi ngi ciy dox di góor ñeeg jigéen ñi mag ñeeg ndaw ñi chef de village yëpp gis nañ seen bopp ci góorle soo gisee en tant que chef religieux je me présente ici pour di wax ci affaire Bonilé c'est parce que moom dafa jàppale sëriñ daara yi mhm. amul lu mu leen defulul chaque année su tabaski ñëwee su korité ñëwee maa ngi jégalu xam naa ne bëggul ñu koy wax lépp moom day woote ne yéen waa sëriñ daara yi lii ngeen moom ñu dem yóbbu ko jox ko suñuy daara lii ñu def ko ci suñuy biir yàlla na ko yàlla sàmm aar ko defal tawfiq lépp lu mu bëgg yàlla yokk lépp lu mu bëgg yàlla na yokk wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kilmaxa Mbakol dix ans ñu ngi liggéey ak Bassirou Boni lay tey jii visionnaire la am na yeneen projet yoo xam ne au niveau de Kilmaxa tàmbali na ko ba benn académie la fa bëgg ubbi boo xam ne tey dañ fay former ay xale ñuy futbal ëllëg ñu mel ne ay Sadio Mané pour dem à l'étranger te bu boobaa lépp mooma parce que c'est l'initiateur waaye avant may tëj damay jox ki nga xam ni. mbokkam la xaritam la di nit ku sawar muy Malick mala nag sa dernier mot ci Gora. waaw ah, waaw woote bi mu ngi noonu li ngeen wax rek mooy wax ji Gora nag mu ngi woo maire de la commune Ndiaw Thiam di woo Serigne Diouf di woo maam eh, di woo eh, xaar kii di woo eh, Djibril Mbaye ancien maire de Pekes di woo di woo kii sëñ Modou Dem responsable politique fii ci Pekes moom bàyyiwul kenn susu nag ñi mu dëkkal ak li nga xam ne ñoo wër Pekes yëpp meeru Mbayeen meeru njuuf bàyyiwu ci kenn bàyyi góor ñene mi ngi woo ñëpp bis bi nga xam ne moom la ko Bass Diop di defal fii ci Pekes ci pay ci kër Massamba Aram Diop bàyyi góor ñene mi ngi ci woo mbooloo mu jullit bàyyiwul kenn la deux la trois heures fu mu jotee luy aada ak cosaan dina feeñ ci bis bi nga xam ne moom la Bass Diop di defal Gora caam bas nag yàgg naa def cérémonie yu mel ni li nga xam ni moom la aada ak cosaan li nga xam ni moom la fi ay maamam bàyyi woon bas di ko doxal yàlla na ko yàgg a doxal kontaan nañ trop lépp neex na ñoo ngi leen di gërëm bu baax di leen sant bu baax kontaan nañ bu baax a baax. kon ma tëj man ni nag sunu xol sedd na te dara amagul yàlla nañ tàmbalee bisimilah rahmaani rahim terminé alhamdulilah rabbi alamin ma projeté leen benn affaire boo xam ne tamit ba nga xam ne Bass c'est un visionnaire ah Kajoor démb nag moom la war a def ci Maxa bu lii passé dina fa def Kajoor demb boo xam ni képp ku yëngu ci aada ak cosaan dans le Kajoor ak depuis Dakar les grands historiens ñoom ñëpp ñu ngi leen invité au niveau de Cilmaxa kon nag Basirou ñu ngi lay ñaanal fan wu gudd ak yaram wér gu yaram di ko ñaanal ñëpp ñi ngay liggéeyanteel ak kullu doomu aadama nag te xam ne nag développement rek moo am solo kuy liggéey politique de développement commune boo dugg borom dina xaw a tiit ndax day yaakaar yow politique la jox mais politique bi ne c'est une politique de développement comment faire pour éradiquer la pauvreté au niveau de toute commune boo xam ni Mbakol développement dugg na fa muy l'initiateur le directeur du Bonilé muy bassiri Diop merci merci ca bële de incha allah jërëjëf